kaddu yi li tax mu mat dañu ne benn bokk yaakaar kon benn kaddu jub na matale na liñ ciy wax rek mooy Issa ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant yow yaa ngi matal kóllëre yaa ngi feddali kóllëre yaa ngi fàttaliku démb te démb dafa am solo ku xamul Doucouré dégg nga ko maa ngi koy encouragé barke démb ma ne ko la nga doon def démb ak barke démb yàlla nga doon defal yàlla mooy fay. ndax léeg nga gis ben way jóge fële defal la teranga nga ne kii xaw ko ci aadama yalla ko def par force mu fay la doomu aadama du fay yalla moy fay mais li nga def ci nit ñi te yalla rek taxoon inshallah yalla yàlla la ko fay ci katunu yalla ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant parce que cette caravane là bu doon mag ñi rek du dem kon xalé ñu ngi ci profité ak surtout jigen ñi di leen gërëm di leen sant merci beaucoup jërë ngeen jëf merci bien ñoo ngi leen di nuyu ñëpp ku ci nekk ak turam santam di leen balu ak ci naaj bu tang bi parce que sànq ba léegi waa marché yëpp dañoo bayyi seen jitt yépp ngir ñëw damaa ñëw ni leen Abdou Karim a ngi ñëw ànd ak Ababacar Doucouré ñëpp bàyyi seen yitte bàyyi lépp ñëw taxaw ngir yow ñu lay wax ñu nag fii rue du Soldias fii rue 10 Daaru Salaam na sa xel dal ñun ñëpp ñu ngi sa ginnaaw koo gis koo gisul ñëpp ñu ngi si ginnaaw Ababacar Doucouré amuñu lu ñuy ragal gis nga fii gud ba gudd ñëpp benn bokk yaakaar bi lañu ñun amuñu lu ñu xaajee di sant ñi sama dëkkandoo yi nag damaa woote ñëw ñu leen ñëpp a génn kontaan naa si parce que wootuñu wuy si la dafa neex dama bëgg yéen ñi nga xam ne yéen a sopp Issa bëgg Ababacar Doucouré le 17 na ngi ko woote bi bismillah asalaamaaleykum mbooloo mi ku ci ne maa ngi lay nuyu sa ak sa sant di leen baalu àq di leen baal àq bu ma feebaroon bay raam sax bu ngeen ñëwee taxaw fi bu ma waxul duma gor bu ma doon raam sax naa wax ndaxte nag dama ànd ak moom bu yàgg maawa mbaay mi ma ma yóbbu ci paa Dukkure boobu ba léegi xoolu ma gisuma dara jéemu maa xool lenn it ndax jëmmam ji moo tax mu boole ñu ku baax muy Abdou Karim Sall lépp lu muy def rek boole ñu ci ci biir amul waa kër Doucouré amul waa kër Abdou Karim Sall amul waa kër Bennoo ñun ñëpp benn lañu ñun ñëpp benn lañu kenn mënul xàmmee kii waa kër Doucouré la kii waa kër Abdou Karim la kii waa kër Bennoo la bon pa yow loolu lañ yow lañ koy sante ndax tey boo ñu yóbbu woon ci trian wala nga yóbbu ñu ci cuune muy dajale suñuy juróom fukk suñuy ñeen fukk di ko lekk bu boba dinañ am gàcc waaye rek ñoo boole gor gu melni Abdou Karim Sall xorul suñu dara lu mu am bokk na ak ñun lu mu am boole na la ci boole ñu ci ñun ñiis ak say nit yalla fi mom pa paa boo nelawal Abdou Karim Sall bu tëddee na nelaw fi yéena ko mom kanen amu fi place ñun ay gor lañu ta ñu ngi seen ganna fu ngeen aw rek ñu ngi fofu fu ngeen dem rek ñu neewu ñu fofu ngeen balma man nak duma delu ginaaw xëccëwuma kenn liggéey laa xam moom laa gëm ñii wóor na leen wóor yàlla ne dama daan xëy di dox suba ba ngoon duma ma sonn duma ma tay xam nañ ko te si laa nekk nag waar wi mu bëgg ñu bayal ko ko président bëgg ko képp koo xam ne xëy si nga wax naa la ko dinañu ànd dox si bu élection yi jeexee duñu tëdd duñu fanaan danañu def jëmale 2019 yaakar ni man mi amna ku yaakar ni man mi da nga gàjj say ren khas say ren gasul lu ku mënalul géej gi dara meuna loma dara ken duma ma ginaaw dama bëgg ngeen xamni Abdou Karim dina top ci ginaawum and ak mom ñu ànd liggéeyal président asalaamaaleykum waa kër Mbaye Fall kontaan gisoo suba ba léegi damaa sangu ba set sol sama grand bu ànd ak sama géeru juddu waaw képp ku ne Doucouré rek xam na Doucouré soninke la Doucouré fabaxera kuy na julaa laa sane ne ñaxate keroog bu ngay ñëw kër kër Mbay Fall fii fekk sama papa ngi dund mhm. waa kër Mbay Fall ak ñi ànd ak Doucouré keroog bu muy ñëw fii man ak Djibi Dramé ñoo bokk ndey baay maay taaw keroog Doucouré bu mu ci dugg séer ma présenté ko paa bi paa bi di ñaanal Doucouré xamal ne Doucouré man xam naa la xam naa sa dëkk xam naa fi nga juddoo xam naa la man kenn mënu laa wax yooyu yaay kan ku dul man Doucouré Faba Xeera loolu boo demee kër Soninke ñi ay buur lañu Doucouré Faba Xeera yow loo yóot yàlla dala koy may parce que yaa bëgg famille géwél Doucouré doo xaddi doo daw loo bëgg suba ba ngoon defal nga ko askan géwél yi kon keroog dénkaani bi nga xam ne sama papa loolu la ñuy defal fii man ne foofu laay dem Doucouré foo nekk ma ànd ak yow wallaay lazim foo nekk ma ànd ak ko wallay garmila wo dugure garmila ko billay garmila dugure mi daal garmila garmi mu doon moo tax kër mbay faal wóolu ko wallay garmila wo dugure garmila billay garmi la du kure garmi la garmi mu doon moo tax jibi drame wolu ko le ko bay ñu du la no bay ñu solo bay ñu foy dem yo ñu garmi nga doon moo tax zeyna drame wolu lo rewlo bewlo tabe nga am nga ko garmi mu doon moo tax zeyna drame wolu la wallay garmi la wo du garmi la billahi garmi laa duxure faaba garmi nga tigi te mogo mi na woy kadinga banna kanu te mogo mi na woy maasire wallaay duxure billaay duxure wallaay duxure billahi duxure wallaay duxure billaay duxure wallaay duxure billaay duxure wallaay duxure